88 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise-Diagne de Dias, cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Sacré-Cœur 1, Pikine 1, Ben Tali 1, Yoff 1, HLM 5 1, Cambérène 1, Keur Massar 1, Fass 1 et Colobane 1. Donc tous les cas communautaires aujourd'hui sont à Dakar. 111 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4427 cas ont été déclarés positifs, dont 2699 guéris, 49 décédés et donc 1678 sous traitement.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 ci junni ak fukki test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent bi ñu dellu see ànd ak nañoo doomu jàngoro ji ñooñu nag ñu ngi toll si juróom-ñett fukk yi nga xamante ne moom la ñuy wax contact moom la suñu service yi bërëbu liggéeykaay yi di topp ak di saytu am na ñaari cas nag yi nga xamante ne importé nañ ko mooy dañu ko jéggaani mu ñëw fii ñu ngi jàllee aéroport international Blaise Diagne bu Diass juróom-ñeenti cas am nañ ko moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi tëdd tey ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn pikin am na benn benn Tali am na benn yoof am na benn HLM 5 am na benn Cambérène am na benn Kër Massar am na benn Fass am na benn Colobane am na benn ñu wax ne ñoo ñëpp cas communautaire yi ñu am tey yëpp ñu ngi teewlu fii ci diwaanu Ndakaaru téeméer ak fukk ak benn ci ñi nga xamante ne feebar nañ bi ñu leen seytuwee seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak ñeenti cas grave nag ñu ngi tëdd ci suñu euh, bërëbu sawetaas yi moom lañuy wax service de réanimation ci l'hôpital yi ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi feebar ci tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan dalee ko mars ma fàttali ne mooy bi nga xam ne mbas mi Covid 19 dugg na Sénégal ba léegi ñu ngi tollu ci ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar kaay yi nga xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñu ngi am ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñeent fukk. ak juróom-ñeent làkku nañu génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne ñoo toll toog tëdd léegi hôpital ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaan askan wi ñu topp tegtal yi nga xamante ne moom la ñuy wax geste barrière bu ñu ko defee mbas mii dina génn si suñu dëkk Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.